salaamaaleykum ah benn information lay joxe Pawlish Mbaye sama xarit la Pawlish sama xarit la mais na bàyyi yooyu Kouthia papaam la waaw dafa génn ne day dafa may Kouthia 2 millions xaw ma 1 million te du dëgg Kouthia nag sénégalais yëpp a ngi koy woo mbokkam yëpp ngi koy woo naan la Pawlish lu baax la def waaw waaye Pawlish jox ko dara waaw. jox ko dara dara dara sénégalais yëpp sénégalais yëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi woo ko caa naan ndax Pawlish dalaa jox xaalis Pawlish jox ko tous waaw Pawlish nag damaa bëgg mu génn leeral xaaral xaaral ma woo ko caa yow Kouthia Sénégalais yëpp Sénégalais yëpp nee nañ nee nañ ko Kouthia ñu ngi bind tey ne Kouthia Pawlish da may 2 millions xaw est-ce que dëgg la Pawlish da laa jox wala jox la. 2 millions wala. non man je pense dafa nekkoon dans son rôle dafa toog ci télé bi xëy na bëggoon lu lu lu ma neexal lu ma defal rek mais Pawlish gisuma ko sax bi émission ko sax. dégg yaakaaruma ne loolu daf ko daf ko waxoon rek dama yaakaar daf ko wax rek pour neexal émission bi. du loo xam ne daf ko jëf te nekkul man loo xam ne dama doon xaar ci moom parce que du man maa sàkk pour mu ñaan du man maa sàkk pour mu dimbali ma. dafa nekk ma ci di di di di sonn wala di di jàppale ma. xam nga moom xëy na da ko doon wax noonu rek mais bu bu fekkee daf ko def la génn preuve yi wala mu génn chèque bi du lu ma jox ci liquide du lu ma jox te xaaruma loolu si moom tamit. parce que nekkul lu am. Mhm. mais dañoo xëy sénégalais yëpp bind ko site yëpp bind ko ñu ne jox nañ la jox na la. non non non loolu amul day loolu ba amul dama ne la carrément kaay jël sa wàll. nekkul mhm. nekkul lu ma sàkku nekkul lu ma doon xaar ci moom. Mhm. nekkul lu ma sàkku nekkul lu ma doon xaar ci moom. te tollu gu ma foo xam ne war naa taxaw di euh, yalwaan waral dara xaw ma nag lu mu ci jublu pour mu pour mu wax ko xëy na yéene la boo xam ne daf ko amoon mais laa ci génne sama xel déggu benn yoon yaa ngi woon ci plateau bi noonu. waaw waaw waaw. waaw ah, yow déggu benn yoon ma ma wax ci wala ba mu paree gisuma ko sax wala ma laaj numéro wala dara. d'ailleurs eh, eh, man laa woo ma sax numéro. waaw xëy na moom yéenam la mu amoon la rek wala mu am bunt boo xam ne ko doon sorti bu génnee noonu. Mhm. mais euh, man su ma amoon la moment boobu man balaa ma koy wax sax man maa koy may. waaw ah, kon sénégalais yi dégg ngeen Kouthia nee na gisul Pawlish déggul Pawlish amul sax numéro Pawlish waaw parce que ñëpp si yëpp tey dañoo xëy bindu ne euh, Pawlish nee lu mu jox Kouthia dégg ngeen ko wala Pawlish yorul xaalis boobu sama xarit la nag waaye yorul xaalis boobu comprendre nga sénégalais yi bàyyi la di gëm Pawlish yorul loolu ay waay Pawlish <laughs> man damaa sonn waay

dëgg leen Pawlish ndax dafa jox ku caa xaalis wala jox ko Pawlish tey ngaa jël sa téléphone. allo Pawlish Kouthia nee na dëkk bi yëpp ñu ngi koy woo ne ko da koo jox da koo jox xaalis te joxoo ko ah waa léegi di kañ nga jox mais nee na nee na xamul sa numéro xamoo numéro est-ce que c'est sûr di ko jox di ko jox xaalis bi tey waaw baax na parce que Kouthia mi ngi nii si ligne bi. ah léegi est-ce que mën nga maa def ma filmer ko bi nga ko koy jox. waaw kay nga koy jox. 6 heures. 6 heures. waaw. waa jëlal ko numéro Kouthia. Eh, ah waaw dégg ngeen baax na. xaaral ma waat picca fi mu nekk nii nag nii laa leen koy toppalee su ko joxul tey Pawlish su ko joxul tey suba ma defaat vidéo allo Kouthia Pawlish dugg na léegi nee na 6 heures la koy jox tey. waaw waaw nee na nee naa ko nag nee na man dina ma woo yow mu teg la ma filmer ko waaw nee na 6 heures tey incha allah sénégalais yi yéen ñëpp yéen a ngi seetaan Pawlish nee na tey 6 heures incha allah dina jox Kouthia 1 million yi kon baax na incha allah.